fa am mais am na ñoo xam ne tu sais une chose. y a des gosses yuy jógee ci banlieue bi ñëw ci làmb du ñu dugg ci biti la ñuy toog ba làmb ji tas ñu ànd ak remoulement bi dem. bun daanee seen mbër mën na noo def ay kas. bu nu même bu nu daanee sax mën na noo def ay kas. loolu moo rek ci environnement bi jour boobu naka la dem mais mën na nu romb nit sax tooñ xale affaire xale la. day am ci nawetaan. mais attends milieu sportif yi ëpp violence mais du au Sénégal nous on n'a pas le monopole parce que démb au Caire. Mmh. y a 70 morts ci benn match de football. Mmh. mais boo dee seetaan match de football yi am en Angleterre. Brésil c'est problème bi fii mooy amuñu amuñu habitude boobu ñun même su fekkee dans les autres pays. fii amuñu habitude di gis non non bu njëkkoon. lenn la rek xeexu kurpañ lan daan xeex te léegi xeexu paaka ak jaasi la ñuy xeex. affaire bi loolu mooy looloo garaaw mais loolu lamb ji non El Hadj may ma El Hadj may ma da nga ne bu njëkkoon ay kurpañ lañ doon dóorante léegi ñu ngi ci paaka ak jaasi est-ce que duñu yegg ci fetal mais est-ce que loolu est-ce que loolu lamb ko indi waaw mais ci la bokk ci la jógee ah non non Kalz Kalz même bu ci jógewul même bu ci jógewul ci la bokk Kalz man je suis pour sax que lamb ji moo calmé affaire yi moo wàññi violence ah oui non père ci ci non père ànd ma yow ci banlieue bi nga dëkk waaw au la woon mais actuellement lamb ji moo gën a moo mais bu jëkk ba boo yu bëri ñu ngi faj seen i soxla ci biir lamb ji talatuñu yenn alors soo leen ma ko mayee ma ma dugal bés mu bëgg ah, ah, déjà waaw parce que li ñuy wax mi ngi gis mi ngi dem ak ñëw mi ngi dem ak ñëw ban moom lay laal moom nga am tey ci ci liñ fi jot a soulever problème mu lamb ji problème lamb ji violence beeg bëri ni ñuy doxaleeg ak li ma laaj euh, père Bekay sànq est-ce que yéen royukaay ngeen yéen bëri si dëgg la ay royukaay la mhm. parce que tey jii nii euh, étage yu bëri yu fii yées yu bëri yëpp mbëri la oto yu rafet yi mbëri la mbëri yaa ngi jël seen yaay di yóbbu mar ak seen pap ñoom seen xaalis seen ndey ak seen papa rek suñu xaalis suñu xaalis ñu suñu yaay suñu papa rek dañ koy investir xalaatuñ si leneen lu dul loolu kon kooku kuy def loolu loolu royukaay la Mouhamed nii la ñuy faral di def doguma la di défendre seen bopp maanaam <laughs> euh, mbër yi ñooy doj ñooy dog bu mu gàccee yi noonu lañ koy waxee ñoo fi nekk ñu ngi génnee xaalis euh, ba tax na ñëpp bëgg a doon mbër loolu it lu mën a ne euh, boo ngeen di jox exemple da ngeen naan par exemple ku nekk tey bëgg ngaa jur doomu mbër est-ce que loolu war na tax xale yëpp misé wu ci làmb yi bu fekkee exemple yi nga jox si li nga wax dëgg la sax ñëpp mënuñu nekk mbër moom kooku moom mënul nekk xam nga lan moo gën a bañ jël sa àdduna ba basé ko si mbër parce que yàlla yàlla bu ne yàlla bu nekk dangay nekk mbër dangay nekk mbër bu ne doo nekk mbër doo nekk mbër mais man nga nekk mbër yoolaa la sa métier parce que tey jii boo demee ba ngeen tolloo ma man nga dem sa métier am nga métier booy def à part lamb man maa am naa sama métier mécanicien la man mii di wax ak yow. d'accord béykat yi am nga atelier non xaar am nga atelier. moom atelier mais mécanicien la. kañ nga gëj a taxaw toog di daajaka daaj yooyu noonu. bi kañ laa mais xam nga làmb ak li mu laaj. non waaw loolu am na mais làmb ak li mu laaj. Ah. nga war di entraîner. di yeewu waxtu c'est-à-dire hygiène de vie bi mu laaj. mais attends am loo xamante ni boo taxee fii nañu da nga yor sa métier mais attends loolu xel na nga ko muy benn ñaareel bi mooy yéen neexu leen a défendre xam nga lu tax. man meeg ni ma toll kenn du ma jël di ma def nerf bi yéen mbëri ci la ñuy recruter. Mm-hmm. di leen jox ay 5000. ah waaw mais attends moom foo dem am na ku ma xam ne ko taxawal may ma wax. Eh, mais dama ci ànd. ah saa yi mbërëm waaw loolu am na d'accord ah, naa ci ñëpp waaw ñëpp. cest à ci ñi ko ñi nga xam ne sax dañ koy naan fu ma ko xàmmee. fàttali na moo nekk et puis yow eh, eh, baal ma bala nga ko wax mbës. seetlu yan mbër ñooy nekk nervi. <laughs> bàyyi nga foofu rek amuñu combat xam kenn xamu leen kenn xamu leen ci dëkk bi la ñu ci ay ay ñu mais père ci ay écurie la ñu ne aussi ah, ci ay écurie la ñu ne tamit ci ay écurie bien sûr ah, ay écurie la ñu ne père ci écurie la ñu recruté ah, ki ray fii ne ki ray fan yii pass man nga wax ban écurie la nekk kanti Ndiaga Diouf ban écurie la nekk

gis nañ ko budul benn ñaare yaa ngi dégg am na benn face à face bu amoon ci benn hôtel bu nekk fii combat bu Luc Nicolas organisé woon tuuru na fa xam nga buñ demee ba ci hôtel fii nit ñi war a noppee ñu fay jamantey paaka ñi jam paaka xam nañ leen mais attends ban sanction nga ci dégg bu mën a tax duñ ci sanction bi moo disul élage borom doole da wax moom waxu doole alors Mouhamed boo ma ko permettre encore une alors Zoom euh, dañ leen di nga xamante ne ñooy la voix des sans voix nga xam ne li gars di kaas déglu nga waxtaan wi entre li jógee ci Mouhamed Bekay ak nga xam ne moo di mbër mi yéen lii yëpp da ko jël euh, téye ko d'une certaine manière à lu négatif lamb ji parce que li mu yàq dafa bëri mhm. bu ma defee seen analyse d'accord mhm. leen ñii ñooy acteurs yi. Mhm. Euh, lan la ñu war a corriger li dañ lan la ñu war a dindi. non xam nga de un mooy euh, làmb ji sécurité bi ne ci lamb ji rek moom gën a garaaw man dafa am sam benn booy dafa am benn mbër bu mu doon supporter quoi du ma wax turu mbër bee tout mais dañ ko si gaañ ba après bopp bi rek dafa am chance mais crâne bi da doon da doon da doon dee quoi waa gàllam def nañ pris de quatre cent et quelques mille si boppam boobu te mbër ba seetiwu ko xamu ko en plus mbër yi ñëpp ñëpp dañoo soobandoo ci loo xam ne ñëpp dañ yaakaar ne ñëpp mën nañ cee tedd te en fait mbër yi bëri ñi ñàkk licence ba ab ëpp ñi lakk ñi dul sëgg ñoo ëpp yow yaa ngi ne mbës mbës nee na ñu ngi dog bu mu gàccee mais dog bu mu gàcce guy yem ci yow ak sa alentour kese du du créer entreprise qu'on se dit la vérité mbës du du entreprise intérêt personnel ko def de. non eh, may ma may ma may ma man maa ngi bëri maa ngi bëri ñëw dëkk. non mais maa ngi bëri ñëw dëkk. maa ngi bëri ñëw dëkk au contraire au contraire média yi ñoo dundal lamb ji. au contraire ñoo dundal lamb ji. yow yow yow gis mu bëri. Mouhamed ma parce que yaa ngi yaa ngi yaa ngi yàq xaal bi quoi. père ah. mbëri de un yu garaaw yëpp ci mbëri lay am. mais lamb ji lamb ji dafa garaaw lamb ji est-ce que blanchissement d'argent amu si. ah est-ce que drogue dealer amu si père considère la vérité dama lay laaj dama ko déglu ndax père c'est trop facile c'est trop facile des millions qui sortent la top cak ñi tëgg combat gisuma ci doomu kenn gisuma ku sant mbeng gisuma ku sant li ni ko laay gisuma ci mukk les grands acteurs yi nekk ci lamb ji seen doom sëgg di léewatoo gisuma ko si kon donc dañu protéger seen askan. ñoom non père père xa boo wax dama lay déglu. may ma àggali phrase bii rek. lamb ji facteur la mais violence da cee ëpp. gars jaamuñ yàlla te mbër ànd ak moom wóoru ndax mbër bu ñu ne ko kii boo tuuree dara tam daan te mu sacrifié la ah. on se dit la vérité mbës nga baal ma si wax gi mais mbër ànd ak mbër c'est pas sûr. Ah moytu leen gàllaaju mbër ah, bu gu ndax dama dëkk ak ay mbër nekk ay gaani mbër mbër booy ànd moom buñ ne ko sacrifier kii mën na ko sacrifier amee ah, ñoom ku naan la man combat bi lu ma jaralul amul Bécaye lu ma jaralul amul wax ba mu noo ko dégg ma général di waaj a génn këram dem stade lu ñuy wax jigéen ñi dugg leen benn jour laaj na ko kër benn mbër ma demoon lu tax ñu ne parce que bu génnee mbër mu ko teg bët euh, jigéen ñi ko teg bët du am doom fi jeex békay c'est dangereux yaa di daw lu bon ci jigéen baaxul ci nit est-ce que est-ce que lu bon ci jigéen baaxul ci nit mbër jigéen a ko jur dañoo xamante dëgg lu bon ci jigéen baaxul ci nit d'accord Mohamed merci beaucoup laal nga point bu sensible également par rapport ak euh, côté euh, père sëy lan moo ko gën a sàkk ay père am lu mu ñëw waaw jigéen moo est-ce que jigéen ngi takk ngem si lamb ji di bëri non mais amul ça n'existe pas ah léegi commencé nañ lamb ji waaw déggoo ko la waaw jigéen dafa fragile xam ñun ay africain la. <laughs> te am na yu yoo xam ne ay galaaj la baaxul. waaw comprendre nga. am na suñu benn concert. da doon reporter làmb. Mhm. Bombardier Gris Bordeaux. ci ndëndu waa ji tëggal Bombardier ma gis ko mu toog fa bëgg a enregistrer mais pour problème mu concurrence bëgguma ko woon wax dara. parce que mu yaakaar ne dama bañ mu am son bu neex. Mhm. mais après ma mujj ñëw ci moom ni ko booy. jógal fii parce que fii gàllaaj yi mhm. xamoo lu mbër bii tuus di ñëw xamoo lu mu indiwaale mhm. jógal mais heureusement mu dégg ma mu jóg comprendre nga mais bu fa toogoon musiba mën na ko cee dal parce que bari nañu musiba dal ci affaire bu mel noonu te mhm. xam nga jigéen dafa fragile jigéen dafay jur jigéen day gis lu ji góor dul gis am na lu loo xam ne d'accord dinañ dinañ ñu mën a yàq jigéen lu muy lu muy def góor non mën naa bañ a yàq góor te yàq jigéen waaw waaw mais yooyu yëpp tey ñoo bañ a def luy yàqee jigéen eh? day ëmb. waaw tey ñoo bañ a def luy yàqee eh? jigéen dama lay jigéen day ëmb. d' accord jigéen day wës. et ñoom dañuy dañuy jigéen day sëy. d' accord père Bécaye soo soo ko mayee am na yoo xamante ne ay gàllaaj la ay africain lañu te mi ngi ci biir làmb ji bu baaxul ci ñoom ñu ne la lii baaxul ci yow bu ko def nga la yàqee nga bañ ko def. d' accord père Bécaye wax nga lu am solo par rapport ak euh, xar fa xuufa yi lay waxee li nga xam ne <laughs> peut être arrangé wul soxna yi. mais kat benn affaire bu ñu jàngoon làmb du ndax lan moom parce ndax di nga suivre catch. yi ñuy def États-Unis Amérique yooyu. si on te dit le kurpañ combien. mais mbër mu ci tëggal combat fay la 10 millions pour yow fay na nga lu dul jeex. alors que kala ko fay. du futteeku ngem bu taxaw def yaramu ne. du sëgg di bëri ni nga di analyser